far nga far jóg ma daa koy gane jëf euh, Baye Fall ñu ca ndokkeel nag euh, sunu sang sunu xarit Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall di ko ñaanal yàlla guddal fanam te sàmm ko di ko ñaanal tamit bu baax a baax ci ndogu yi nga xam ne nii tubaarkàlla ci la nekk lépp jàppandi amin wala mu yokk lool wax dëgg yàlla ndax jàppandi ne moom ba pare ndax moom ci loolu rek lay dox uh-huh. ci ndigal rek la nekk ñu ngi koo sargal di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax jërëjëf di sargal nag ak di bégg nag bu baax a baax sunu xarit sunu soppee Mara Dieng ci njaareem ñu ngi koy ziar di ko bégg lu bëree bari alaaji Mara Dieng sax laay wax xam ne na Amadou Mbaye gar mi safaak Maro dafa metti lool <laughs> kon maa ngi ko sargal lu bëree bëri di ndokkeel tam bu baax alaaji Maodo Guèye ca njaareem di ko bége di bége bu baax Awa Diop Mbaye ca njaareem moom tam ñu ngi koy ziar ak alaaji Ngañ Seen nga xam ne moom tamit tubaarkàlla laxasaay gi dañul ba tey maam Cheikh Ibra rekk la gëm moom tam ñu ngi ko sargal di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax defe naa ni Baye Fall Kende xiinde tubaarkàlla ràññee nañu ko lool. Mm-hmm. moo Baye Fall noo ànd. waaw xiinde moo Baye Fall sama nijaay. Mm. ñoo ànd. waaw kenn mu ko kenn mënu ko tàggale. waaw ak yoru Baye Fall. Mm. ndax xiin yi. Mm. moo liggéey jumaay Tuubaa. est-ce que damay dégg ci mag ñu ne. ñu ne xiin yi xanaa Baye Fall nga baal rek am na benn sob bu ne ci ligne bi asalaamaaleykum. waaw ku baax ñu ngi ñu ngi laa fay lu baree bari tur bi naka la. foo ñu wooyee baax Garme. ñu ngi lay ziar tur bi naka la ak foo ñuy wooyee. maa ngi maa ngi wootee Banjul. Banjul tur bi naka la. man Diallo laa sant El Hadj Diallo. El ñu ngi lay ziar Diallo ana waa Banjul. di ziar ñëpp a ngi ci jàmm di bëggee Baye Fall baax bu baax a baax. ah Baye Fall kenn kay tubaarkaal. waaye jërëjëf El Hadj ñu ngi lay ziar a baax a baax. <laughs> di ko ñaanal tawfiix fan gudd ak wér. amiin amiin allahumma amiin. di ko ziar ci turu daayira soppe Moustapha Seck am ndigal Cheikh Khadim ak soxna ñu manjaay ñëpp rek waaw maa ngi ziar ñëpp maa ngi ziar ak suñ ñu ngi ciy ziar ñoom Youssouf Fall ak baax a baax ndeysaan wax dëgg yàlla di rafetlu programme bi di ñaanal Baye Fall kenn suñu borom guddal ay fanam yokk ko bu baax a baax ba mu yëg ko amin amin alaaji mu mel ni dañoo bëgg ci moom loolu moo tax ñu jaayante ngir woote dëgg la dëgg la jàllu waaye di ko ñaanal lépp lu mu bëgg yàlla na ko sa maam Cheikh Rafal defal ko ko amin amin allahumma waaw di ci nuyu ñëpp di ñaar ziar ñëpp jërë ngeen jëf. ah kontaan nañu bég nañu kooku na sa soppe la defe naa ma nga ca Banjul. waaw ma nga ca Banjul. kon da ngay faral dem Banjul léegi waaw wax dëgg yàlla damay dem Banjul damay dem Mali. waaw foofu yëpp dama fay dem di yëngu ji. ci tur yëngu ji waaw ci la ñëw ah, waaw loolu am na solo. Gambie Mali foofu yëpp noonu dëgg am ay mbokki taalibe xam dama fay dem di yëngu fi mu ah. maa ngi war a sax yëngu ji ba ma ko ci kàttu yàlla ah, ba ma ko waaw incha allahu taala ah loolu foor na loolu kon ñu ngi ndokkeel waa Banjul yëpp di leen ndokkee di leen bégg lu bëree bëri mais génn goo bitim réew de waaw bitim réew maa ngi koy bëgg de waaw maa ngi koy bëgg di ko ñaan sëriñ bi kooku kon yàlla na jàppandi wax dëgg yàlla parce que wax dëgg yàlla ku wàcc ci Paris wala nga dem ci yeneen i réew mm-hmm. da nga fay fekk nag macha allah bay faal yi mm-hmm. te ci loolu la ñuy yëngu dëgg la waaw waaw waaw fexe fexe rek li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ñu nekk ci ak tubaarkala nangoo joxe addiya waaw waaw loolu te loolu defe naa ne tamit génn bi tam daf ciy baax waaw ñuqi ak joxe daal waaw ñuqi waaw waaw mooy yoonu Baye Fall joxe ak joxe waaw mooy yoonu Baye Fall waaw kooku nag sëñ Sidi Maxtaar am na bés nu nu ziar ko ak kilifa borom kër gi mu a ñuqi daal tey joxe moom mhm. moom moom loolu moom moom moom moom daf cee bokk te am na solo maam Cheikh Fall damay dégg mu ne. Mm-hmm. bu fekkoon ko joxe ñàkk. waaw ku wat dootu am karaw. dootu am karaw waaw. wallaahu kon xam nga kooku moo waroon moo <laughs> mën a jox a baaxee rek. Cheikh Ibra day. moom day moom dafa doon koo xam ne dafa daj àdduna. tey maam Cheikh Fall moom mooy Baabul Muridina buntu yoon yi. tey Baabul Muridina mooy buntu yoon yoon yi waaw. Mm-hmm. maanaam képp su ku jébbalu. maam Cheikh Fall mooy sëb sëriñ. sëñ Tuubaa benn taalibe la muy Cheikh Ibra. Cheikh Ibra waaw. allahu akbar <laughs> cey maam Cheikh ah. mais yan yan kii nga nu ci mën a indil tuuti. ci ay jëfam ci ay jëfam. yoo xam ne yii tubaar yile la su àggee su accéléré di exécuté moom. waaw lu sëriñ bi bëgg rek moom ci la ne. xam nga Cheikh la hmm. damay dégg ci mag ñi. waaw ñu ne xam nga kër sëriñ si boo demee. Hmm. biir kër gi boo gisee dafa am ay bunt ay. waaw ay kees yi nee na loolu loolu li ko indi. Hmm. nee na ku baax ki. bu bu daan woo Cheikh la waaw. ne bu ko masaan woo. moom fu mu jublu rek da koy bëtt rek jàll. <laughs> la ilaha illallah ci fa loolu foofu lañ ko jëlee. te damay dégg ci ma ñett ñu ne maanaam ku baax ki bu masaan woo. Hmm. maam maam Cheikh Ibrahima Fall. nee na bala moo dem day jàpp. moom bu ko bu ko masaan woo rek Cheikh lu mu yëgatul dara day gumba tëxlu. allahu akbar waay waay xoolal lii ah dëgg lii for na lool. 88 628 22 22 tey nag ñu invité suñu sang suñu xarit suñu soppee Baye Fall kenn nga xam ne kenn la tubaarkàlla ci waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi bu yëngoo it ñëpp xam ne yëngu na. 4 628 22 22 mënoon tàbbijaat ci beneen ci beneen way waaw. yow la nu wóolu. yow la nu doyloo yow la nu doyloo yaa di maam serafa am gënoonu góor yamula yow la nu wóolu yow la nu wóolu yow la nu doyloo yow la nu doyloo yaa di maam serafa gënoonu góor yamula yow la nu wóolu yow la nu wóolu yow la nu doyloo yow la nu doyloo yaa di maam serafa góor yow gënoonu góor yamula la nu wóoloo Guará lamp baabu muridina Fall. Cheikh Ibra. Amadou Fall Saer Ndiaye. Cheikh Ibra. Cheikh Ibrahim Fall. Amadou Fall Saer Ndiaye. Cheikh Ibra. jaaraama jaaraama. Cheikh Ibra. Amadou Fall Saer Ndiaye. la dara ndar ba daaru. lu ma xew. jàll gannaaw yoo mu saxaar. Ah. mbër mu fi rëy. Ah. ba naan la kaar. lu muy def. Cheikh Ibra ngay laa ji pexe. ci lu wér. Cheikh Ibrahima Fall mooy imaamu ah. kullu muridulaay Cheikh Ibrahima Fall mooy kansul maqaami dunya wal axirati wa barsax bilaay Cheikh Ibrahima Fall ku la bañ maa ko bañ toj ma ñoom fii ba Sédhi Dior Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall ndar la ko doon may leeral na bopp jaara tey woykat ah. samba jaara fu mu tollu dana ba ba xeey ah. yaay genn waay yaay genn dal jinaani laay yàlla mooy karim moom rek Cheikh Ibrahima Fall yaa xar sunu xol yi def ci limaan yàlla la baaxe def la ngay xut bu rahmaan Cheikh Ibrahima Fall la ko baabul muridiina Fall ah. Cheikh Ibrahima Fall yaay jenn waay yaay jenn waay yaay jenn waay jaaraama Cheikh Sidil Muxtaar xalifatu général jaaraama Cheikh Sidi Lu Muxtaar xalifatu général jaaraama Serigne Amdi Modou Mbenda Fall jaaraama Serigne Amdi Modou Mbenda Fall jaaraama Cheikh Amdi Khady Fall jaaraama Cheikh Amdi Khady Fall jaaraama Serigne Cheikh Ndigal Fall borom Touba Fall ak Sam yow da gore nga gore nga gore nga gore nga yaay jënn waa yee faal ya Cheikh Ibrahima ko wax ndigal ndigal ndigal ndigal ndigal waaw waa dëgg la mais xam nga sax euh, ndigal moom dafa am solo uh-huh. te bari na ku jëfe ndigal uh-huh. jàmm rek nga cee jëlee. dëgg la moom da Baye Fall nag da koo teel a xam moom ne ca. moom déedéet da maanaam wax ne ndigal. waaw la. waaw su ëppee du ubbi. waaw bu yéesee du ubbi. dëgg la ndax tey jii boo defaroon sa néeg bi ba mu jekk. waaw nga wutal ko sillir wutal ko caabi. Mm. daal di koy tëj. Mm. dem ci menuisier métallique bi. Mm. dem ci menuisier métallique bi. waaw. mu dagg caabi ji. Mm. soo ñëw bokk jugal dugub bi. Mm. kon mu ndigal moom. dëgg la moom la Baye Fall war di dox dëgg la <laughs> na nu nañu bég nañu ci ci Baye Fall kenn di ko bégee lu bare bari di ko ñaanal jàmm nag wax dëgg yàlla macha allah ku ne xam na ne li nga xam ne nii moom ci loolu la nekk tubaarkaal fexe na ba jàng ko ba mu mokk te mu teg ko ci yar ak teggin mm. te am na solo di ndokkeel nag bu baax a baax. xalifa bi bu baax a baax ndax seen tànk yi nu ñëwee fii tànku ndigal rek la. Mhm. buñ ci amoon buñ ci amoon ndigal tubaarkàlla kon lii du mën a xew. ndigal loolu moo leen indi ci festival bi. Mhm. ndigal loolu moo leen indi ci invitation bu mag bile. di wax ne tamit dëgg-dëgg ku leen ku leen soppi tamit na leen na leen dollee ñaan ak ak ñaanal leen ba ñu mën a ba ñu mën li ñu bëgg a jëfe ci yoon yi tamit tubaarkàlla yàlla dogal ñu jëfe ko ndax ay ndaw lañu waaye tubaarkàlla dañu laxasaayu jël lépp delu ko sëriñ bi. ñu ngi ci 88 628 22 deux ci ngaa jokkoo ak ak euh, Baye Fall kenn ñi fare extérieur nag double 0 221 33 841 22 99 xam naa daal euh, kan ngay sargal nag ci ci sa sa sang boobule di sëriñ Benda Fall. sëriñ Abdou Modou Benda. waaw sëriñ Abdou Modou Benda. xanaa di ko sent rek. waaw ndax ñun. Mm. sëriñ Modou Fall Benda rek lañ am. mooy suñu bunt ci kër Cheikh Ibra hmm. ah maanaam sëriñ bi fi nekk di sëñ sëriñ am di Modou Mbedd waaw moom la ñu am hmm. ay ndigalam moom la ñuy jëfee dëgg la lu mu te dañ koy bàyyi dëgg la moom ko moom sëñ Modou Fall Mbedd sëñ Modou Fall Mbedd waaw sëñ Modou Fall Mbedd Cheikh Ibra sëñ Modou Mbedd moo nekkoon sëñ Maam Cheikh Fall moo ko daan dawalal waa moo ko daan dawalal da ko yaral boppam ah, loolu yéeme na ñu jël soppe bi nga doog a àggale salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah waaw sang bi ñu ngi lay ziar waaw El Hadj Modou Mbaye Garmi. waaw euh, sànq bi tur bi naka la ak foo ñuy wooyee. kii de sa alaaji sa alaaji Samba Awa Ndiaye sa mbokk ci jaaree. Eh, mooy eh, Samba Awa Ndiaye. Ndiaye Bandar. ah asalaam Modou Mbaye Garmi d'abord dama lay ñaanal ci weeru koor wi. wallaay wallaay Ndiaye. yàlla may la may la weeru koor jàmm yàlla may la weeru koor wu ñu nangu. amin amin amin Ndiaye ñu bokk. waaw ndax yow da ngay suma xarit bi suma mbokk te ni mbokk mu ñàkk ci ñaan mu baax boo xam ne sa mbokk yëpp ak lay ñaanal. waaw. ndeysaan kooku nga invité waaw. sama jarbaat bi sama rak. Mm-hmm. est-ce que. di sama xarit bi sagum njaarim yëpp. dëgg la waaye dëgg la de. di koo xam ne kii njaarim yépp koy sagoo. Mm. xam yow man lu daal Ndiaye rek laal na ma. waaw dëgg la de Samba Ndiaye loolu dëgg <laughs> dëgg la moom wax dëgg yàlla. gënul benn yoon Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra wallahi lii foor na te damaa dégg sànq mu gërëm Mara Dieng alaaji Mara Dieng hmm. Mara Dieng moomu nag waaw ah alaaji Taala Dieng jur ko hmm. Maysa Dieng jur ko hmm. galo jur ko galo rubba jur ko rubba maamu Njaay maamu Njaay bu doom xujjatam jur ko di maamam waaye Alaaji Taala Jeng mi nga xam ne moo jur Mara Jeng moom nekk TFM. waaw. soxna Maguette Mbaye ko jur te Maguette Mbaye ak suñu yaaram Mbaye Arafa ñu benn bàyyi. cey loolu. Hmm. kon Mara bu taxawoo Baye am di moo benn. ah tubaar fakkal la jar naa gërëm jar naa sant. Hmm, hmm. man nag su Baye Fall kan toogee foofu di woy Cheikh Rafa faaw sama xel dem ci Alioune Badara Baro mi nga xam ne mooy Cheikh Rafa soxna jëgg Fall di yaayam maam Saliou Fall di maamam. ndeysaan ndeysaan. Saliou Fall bokk ak maam Saliou Fall ndey ak bàyyi ma ko ciy baaxee. waaw ndax lépp ci waxee bu dul Cheikh Fall wax dëgg yàlla man ñor na ma. wallaay loolu for na loolu for na Samba wa. di gërëm nag lool nag Baye Fall kenn di ko ñaanal yàlla yàlla may may ko gudd fan. te yàlla may ko gudd fan Amin Ndiaye ah, ah, Bandar. moom waaw di ndokkeel nag Baye Fall yëpp. Hmm. sëñ am di Modou sëñ am di sëñ am di Khady Fall barki démb fa lañ demoon. waaw ci ndogu yi waaye ku fa dem xam ne Cheikh Fall ah bàyyi na ko sët yu mat sët. billaay dëgg la billaay dëgg la. ñuy ndokkeel Baye Fall yëpp soo ñëwoon barki démb kër si ñoom di Xadi Fall ci kër Serigne Assane Fall ci kër si Nerdi Fall hmm. xam ne Serigne Serigne Mame Cheikh Ibrahima Fall li mu bàyyi woon sota bi kër Serigne Modou Ablaye Fall kër Serigne Assou Amdi Modou Mbedd kër Soxna Soxna Jëgg Fall hmm. kër Serigne Fall Saliou kër Baye Fall yëpp ndeysaan ndeysaan nga xam ne li fi Cheikh Rafal bàyyi woon bu Cheikh Rafal del si waxtaan tey sota bi duñ duñ duñ duñ defaat seen toogaay dëgg la waay dëgg la waay kon Modou Mbaye Guèye dama lay bëgg gërëm rek la sant di profité ci émission bi nag dëgg la Baye Fall kenn moom di ko ñaanal di hmm, ñaanal Mara Dieng dëgg la Ndiaye foofu mu nekk fàttewul njaarim fàttewul bawal. fàttewul njaarim lépp moom la wallaay Ndiaye Banda tey bu Baye Fall kenn ñëwee foofu Mara Dieng la. dëgg la. Baye Serigne ñi ngi ñëw na fi Tafa Bool ñëw na fi artistes yu bëree bëri ñëw nañ fi te lépp Mara Dieng la fàttewul nag njaarim bi dëkk. dëgg la waay dëgg la waay dëgg la waay. kon ñu ngi koy sagoo bu baax di ko ñaanal di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal faram. amiin amiin amiin amiin amiin amiin loolu daal laa ne woon rek dama lay woo gërëm la. waaw kontaan nañu yàlla na yàlla may gudd fan bi gërëm ak Aziz Mbaye maam Fama. ba ba jërëjëf jërëjëf Mbaye. kontaan nañu di beeg ak di kontaan moom nag ku du ku tudd njaareem sa xel dina dem ci Sambaawa Ndiaye. wallaay barke Sëñ Tuubaa mooy lépp foofa. ndax moom itam day nit ku baax. <laughs> ku baax la ku ñàkk ñaan. ndax fexe na tubaarkàlla ba communicateur traditionnel yi. Mhm. ku tàbbi biir njaareem sa xel dina dem Samba Awa Ndiaye mu ànd ak ni ànd bu rafet nag ña nga xam ne tamit ñoom la nekkal loolu rafet laa ànd ak ñun njaareem te loolu am solo barki Sëñ Tuubaa ndaxte loolu moo war communicateur traditionnel ci dëkk buntu dëkk bi nga waaye làmmiñu dëkk bi nga mhm. te Samba Awa Ndiaye tànk boobu rek la tax taxawee ñu ngi koo ñaanal tamit moom tamit yàlla guddal fanam amin amin amin amin te sàmb ko lu baree baree baree bare xamee ne daal dëgg-dëgg bépp communicateur bu ne ci réew mi Samba Awa Ndiaye sa fierté la ndax xam nga ne la la la war communicateur ci dëkk Samba Awa Ndiaye nga ci. wallaay ca de. wallaay wallaay wàcc ko benn yoon sama wàcc ko wàcc ko benn ñu ndokkeel nag Mara Dieng bu baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. te Mara man daal sopp naa daal gorsu su mm-hmm. dafa regg. barke Sëñ Tuubaa te regg am na solo. boo reggee da ngay le lépp loo xam ne lii lay jóge na kaveer bu laaj fu mu jëm Mara bu sañoon dëgg-dëgg njaareem lay fanaan yi kon moom tam ñu ngi koo ñaanal yàlla guddal fanam te sàmm ko lu baree bari alaaji Mara di ko bégg lu baree bari 88 628 22 22 00 221 33 841 22 99 ci ngaa jokkoo ak sa soppe nag Baye Fall kenn mi nga xam ne tey moom la ñu moom la ñu invité te àddina yépp xam ne tubarkalla li moo def jàng na ko ay man na ko tarbu na ci li tamit te loolu rekk moo am solo fan ngay bëgg a tàbbiwaat Baye Fall. damay bëgg dugg ci. Cheikh Ibrahima lamp yoon wi. waaw lamp yoon wi. waaw waaw. waaw maam Cheikh Rafal moom. waaw waaw xaaral nu jël soppi bi ni ci ligne bi asalaamaaleykum balaa ngaa tàbbi ci ci boobu asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. sang bi na nga def ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay ziar bu wér wér. yal na yàlla bokk nangul nu. alhamdulilah suñu Baye Fall moom laa soxla woon. bisimilah mi ngi laa dégg Baye Fall. ñu bu baax a baax kaw. si Abdourahmane lañ koy wax Diourbel. Cheikh Abdourahmane ñu lay ziar bu baax a baax. kon ñu ko fi ah. Ah, bu baax a baax ñu ngi ziar nag waaw si ma sàmbay borom mbégere ndeysaan ñu ngi koy siyaar bu wér li nga def mbégere ko bu baax a baax a baax jaajëf jaajëf ak xanaa loolu di la ñaanal rek suñu borom gën a yokk fan yi amiin ko bokk gën yokk mën ngaan gi ci nga xam ne moom ngay way di ko nooyee ko bokk doole Cheikh Rafal gën a génn ay cassette gën a génn ay clip yi di seetaan di bégee waaw c'est important amiin amiin te ñàkk na ndax yow jaam laa war a xam bi am suñu Abdou Diop tamit ñu ngi lay siyaar bu wér Diourbel maa ngi siyaare Baye Fall yëpp di siyaare waa Njaareem nag bàyyiwuma kenn waaw waa Njaareem ñu ngi kontaan bu Touba ñëpp maa ngi siyaar mm. dëgg la waa Njaareem ak Touba ñu kontaan bu baax a baax a baax jaajëf barke maam Cheikh Fall di la ñaanal rek sa kaw sa kanam te yow gëm nañ da ngay dem sa kanam incha barke maam Cheikh Ibrahima ah. Ah. ëpp na trop daal barke maam Cheikh Fall mais daal jàppal ne waa Diourbel moom waa kër kër sëñ Massam bu baax. waaw waaw sëñ bi sëñ bi sëñ bi waxal ma ko mu ñaanal waa kër gi ñoom it. ndeysaan waaw yokk ñaanal borom maanaam borom kër gi. borom kër gi. waaw. waaw. waaw yéen koy am na ko ñaanal. wallaay dëgg la ndax lii. incha allah kenn kenn amul fayam. dëgg la kenn amul fayam. dëgg la dëgg la. jaajëf ndeysaan kon baax na jërëjëf waay. jaajëf jaajëf. ah rek nañu sunu soppe boobule 88 628 22 22 00 221 33 841. vingt vingt deux quatre vingt dix mm. ci ngaa jokkoo nag Baye Fall Kend Baye Fall euh, defe naa ni njaareem defe naa ni benn bopp la ñu de. waaw njaareem de moom ci bëgg lool maam Cheikh Ibrahima Fall. do kese rek la ñu bëgg. <laughs> wallaay ndeysaan njaareem moom. Mm. Cheikh Ibrahima rek Cheikh Ibrahima rek. kese lañ bëgg. allahu akbar. Ah. ndeysaan. Ah. mais meloom ndax mës ndax mës na décrire meloom meloom yow. maam Cheikh Ibrahima meloom. meloom est-ce que mës nañ la ko décrire. ni nga xam ne noonu la noonu la daan solo noonu la. waaw waaw waaw loolu tamit damay dégg ci ndax man waaw ci mag ñi. damay damay yenn saa yi damay nag toog ak mag di laajte. waaw ndax sama sama kër waajur. waaw Cheikh Ibrahima ko rëdd ak tànkam jox dëgg la fi mu toll nii maam Cheikh Rafal ma. ah li la dalama dal de. <laughs> ma dem ba seen sama maam. Ah. Cheikh Ibra di ci tànkam jox dëgg la man a xam naa fa maa xam ne maam Cheikh Ibra ne ma dem mi mënu maa ñàkk ba jëdëkk ak moom. Mhm. waaye nag ma dem tamit benn xiinam mi benn xiin la woon jëf jër rek la ci daan teg waaw jëf jër rek waaw jëf jër ñàkk jëriñ la ci daan xam naa ci nag yu bare bari me nag dellu ci fi nga nekkoon waaw waaw waaw xam nga fi ne woon sax <laughs> waaw da nga ne da nga ne da ngaa sa soog mag ñi di waxtaan ak ñoom waaw waaw damay damay waaw ñu ne Cheikh Ibra ku bëggoon boppam la lool ku silmisé woon la torop looloo xew de ndax lu wér nga wax maam Cheikh Fall foo ko masaan fekk hmm. palmaan lay sol dëgg la maanaam di xeeñoo fan yii bi ñu amee émission ak Boubacar Diallo. dëgg la maa ngi koy wax na ko. dëgg la waay Cheikh bi rek sikki hmm. dëgg la Cheikh dafa bëggoon boppam ku sinistre woon nag. dëgg lool te ku jàngale woon nag. billaay billaay billaay billaay. loolu kay euh, nangoo nañ ko ci mag ñi. Hmm. ne la su masaana solo ba ba génn. Hmm. da ngay da ngay da xam ne kii góor yàlla pire ngi wallaay lazim am taxawaay loolu nag waaw waaw ba pare mel ni mu war a mel ba pare tubarkalla fonk ah. tubarkalla lépp daal xamaa ci zahir gi rek lanu mën a waaye li ci baatin bi kenn mënu koo wax waaw waaw tubarkalla masaan nañ gén daal ba war fas wi mhm. da xam ne daal kii daal dëgg dëgg dëgg jawrin piir la waaw waaw loolu nag loolu nag royu la royu la sëtam fi bàyyi ndeysaan ndeysaan ñoom ndeysaan yoonu Cheikh Ibra maanaam ci la nekk askan yu maam Cheikh Fall daal doxee noonu la ñuy doxee dëgg Birane Ndiaby Fall barke maam Cheikh Fall ah loolu for na Mamadou Fall Seyane Ndiaye waaw loolu bég na <laughs> kon léegi nu tàbbi rek ci beneen ci beneen way balaa nu dellu siwaat ci waxtaan wi barke maam Cheikh Fall na biir Baay Faal na faal aboori jaanu laaye jaarama Sidi Ibrahima Fall Baay Fall kenn na waay loo néew la néew la dangay dee loo bari la dangay dee loo néew la néew la dangay dee loo bari la dangay dee loo néew la néew la dangay dee loo bari la dangay dee naa jaamu leen ko balaa ñaaw Saliou sama asalaamaaleykum di wax ne ñu ngi ci 88 628 22 22 02 ak Baye Fall Kende asalaamaaleykum. waaleykum. sang bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax El Hadj Modou Mbaye. ñu ngi laa fay di la ziar di la béggee ku baax kooku. kii de Serigne Dame Fall. sëriñ daam ñu ngi laa ziar Fall. sama sëriñ ñu ngi leen di ah, ziar bu bi ñu ngi lay ndokkeel di la ziar di la di la jox sa wàccuwaay. alhamdulilah tabaarkalla di ñaan yàlla sàmm la guddal sa fan bu baax a baax a baax Fall. amin amin barke Cheikh ak yéen ñëpp rek. ah waay amin Fall amin Fall amin Fall. waaw ñu ngi rafetlu bu baax liggéey bi de taxawaay bi rafet na lool. alhamdulilah Fall. waaw ñu ngi leen di topp saa su ne wax dëgg yàlla. Mm, ndeysaan lii rëy na lool wax dëgg yàlla. waaw liggéey bi moom rafet na lool. ah alhamdulilah Fall alhamdulilah Fall ànd naag lépp li mu war a ànd rek. waaw ah xanaa nga dolli ñaan rek de wax dëgg yàlla. lii de rëy na lool ci ñun sang bi waaw ñu ngeen ñaan baax ci doole yi sëñ Modou Mbenda. amiin amiin allahumma amiin. waaw sama borom guddal seen fan wéral leen. amiin eh, mottali seen yéene. amiin àggale mébét yi ngeen am yëpp sama borom def defal leen ndam ci liggéey boobu yi ngeen di liggéey amin Fall. ndam ndam lu sax dàkk rek. amin amin allahumma amin. ñu leen koy liggéey ci bërëb boobu yëpp rek ñu jaarale ko ci yow. ay waay amin Fall amin allahumma amin amin Fall. waaw waaw Baye Fall moom nag gi boo xam ne bii. waaw moom moom maama mag bàyyi mag ñëppam dañoo jeex takk ci kër gi. est-ce que est-ce que est-ce que mu juddoo fi yaroo fi. ñu hmm? yaree ko fi tërbiyaa ko fi tarxiyaa ko fi. ndeysaan. defal ko lépp luñ ko war a defal. nga xam ne xamut leneen lu ak taalibe. cey. baat boobu yi muy tudd de di ko yëkkati. dafa hmm. tudd fekk ñu koy tudd seen kër. allahu akbar. mu nàmp ko xam ko. Hmm. yàlla dogal it noonu yi nga ko waxee mu boole si nag li nga xam ne mënta ñàkk ci ab taalibe muy ab yar. ab yar surtout ndax moom mooy li jiitu ci ab taalibe. dëgg la way. ak ak yar ak i teggin ak xam mm-hmm. kilifaam xam xam kilifa mm-hmm. euh, jox jox jox leen ñoom ñëpp seen wàccuwaay est-ce que est-ce que est-ce doo xam kan mooy wasilaam alhamdulilah ñëpp la teg fi mu leen war a teg mm-hmm. ñëpp la joxu cër ndeysaan loolu man ñii tuddee na ma doom cey lii nag lu lu lu lu rëy la lu rëy la sëñ Dame waaw waaw ma ngi nii fi mu ne sama kër fii lañ ne di seetaan télé bi ndeysaan ndeysaan eh, ndeysaan ndeysaan ak njabootam ah lii rëy na lii rëy na lool mel nag noonu la sëpp rek man nee naa sama xarit la mais hmm. keroog nee naa ko sama xarit la sama xarit nag am na lu muy lu bare bëree ah, bëri oh, sama xarit wallaay wallaay Fall waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla sama borom guddalu fanam te dolli ay ndamam. amiin saxal ko ci baat boobu nga xam ne wala ci tur la ak baru. amiin tur yàlla moom moo gën a màgg si lépp. wilaay dëgg la. waaw waaw waaw te moom teg na ko fa mu war a teg. tey dugal ci lu si bokkut. noonu yi mu mel it noonu la mel rek li ñu naan naturellement la mel. naturellement wallaay wallaay Fall wallaay Fall noonu mu gis ne noonu la mel rek. wallaay Fall bari jàmm. am am am am jotale bu baax a baax a baax. alhamdulilah sentir waxtu wu ne fu mu jëmit ci ndigalu sëriñ bi la fa demee. cey loolu muy def lu ne dana dem ba sëriñ bi sëriñ bi ne ko defal nangam ak nangam. loolu mu nekk sëriñ bi ànd na seeg moom. alhamdulilah alhamdulilah yàlla loo xam daal ku jëfal yàlla suñu borom mu fay la. yàlla di fay ci ko jëfal lu mu nangu daal yàlla na leen ko defal yéen ñëpp rek. amiin amiin Fall amiin ah kontaan nañu bég nañu. waaw kontaan nañu bég nañu ci woyof gi ndax lii tamit tubaarkàlla mënoon nga déglu rek waaye nii def tamit ci woyof la bokk te baal fal woyof rek moo ko war bég nañu lool sëñ daam ñu ngi lay ñaanal yàlla sàmm la guddal sa fan bég nañu lool kontaan nañu bisimilah waaw defe naa ko sa soppe la de ak sa sëriña waaw sama sëriña sama xol dafa sedd xam nga daanaka fi mu toll nii <laughs> mun tubaab sama xol dafa sedd mm. ndax ne ñu ñoom yar ma ci tur yàlla wi wallaahi ndeysaan ma nekk mm. di ko def waaw ñëw fii tey ji di ko def ñu woote bu ñu wootee day am lu lu bari loo xam ne dëgg la de dëgg la de dëgg la ah couleur na bés bi de waaw ndax man tur yàlla rek moom laa bëgg wallaahi barke maam Cheikh Fall lépp nekk hmm. fi mu toll nii sama métier laa yor di ko def sëwur camion la allahu akbar waaye dama ko daan dama daan dawale bu ma ko defee di dem voyage di dem Mali ay Gambie hmm. su ma ñëwee bu ma ñëwee ziyaare sëñ bi nuyu ko mu ne ma léegi ñu dàq la mun a ah Fall ëpp naa allahu akbar lu ñu jël soppe bi ni ci lii asalaamaaleykum ah loolu foor na asalaamaaleykum asalaamaaleykum maaleykum salaam ok soxna si ñu ngi ziar ñu ngi delloo ziar tur bi naka la ak foo ñu wooyee soxna maa leen doy kër Cheikh Ah, ah soxna Malick Cheikh waaw soxna Malick ñoo lay siyaar bu baax a baax ndeysaan man a soxna maa leen doy waaw ñoo lay siyaar bu baax a baax kay ndoy bismillah maa <laughs> ñoo lay dégg ñoo lay siyaar bu wér kër Cheikh waaw yaay Baay Faal kenn moomu toog yaay Baay Faal kenn moomu toog waaw Baay Faal noo def maa maa ngi sant maam Cheikh baax a baax sama xol sedd na de kontaan naa jërëjëf jërëjëf xamoon nga ne lii dem ko Baay Faal da baax dëgg la dëgg maa ngi lay ñaanal ca kaw ca kanam. amiin barke incha allah. ndeysaan waaw kontaan nañu kooku nag bu duggee jigéenu Cheikh Ibra yëpp. Uh-huh. waa kër Cheikh Ibra yëpp tubaarkàlla dugg nañu. Uh-huh. mu yóbbaale ñëpp géew. ñu uh-huh. cee ndokkeel nag bu baax a baax ummi seen. ci kër Cheikh Ibra moom te ñu koy ziar ak ajut Fatou Mbaye. ci kër Cheikh Ibrahima moom tam ñu ngi koy ziar di ko béggee lu bëree bëri. waaw nga ne nga ne boo masaan dem ba ñëw mu ne léegi mu dàq la. su ma masaan dem voyage. waaw dama daan ñëw fii su ma ñëwee Dakar wala Sococim wala ci Ritol bi yàgg. ma chargé Casamance ma chargé Bamako. ma ñëwee damay am ay jàng. waaw su ma ñëwee damay gaare oto bi ci kaw tali bi dem jàngi. waaw su ma xëyee daal di départ. waaw mais su ma ñëwee. Hmm. ñu siyaare sëñ bi su ma ñëwee mu ne ma ah léegi ñu la. mu ne ma tur yàlla wi ci la sa lépp ne. ci la sa lépp ne. dee ko def te bàyyi oto yi. <laughs> te bàyyi oto yi ndeysaan. <laughs> dee ko bàyyi <laughs> te bàyyi oto yi ko def. waaw. xawaay boobu man moom fa muy gisee ak man la may gis. waaw amaana olof Ndiaye di wax ne mu ne. mag dina toog mag dina toog ci suuf. Mm. gën yëg ci kaw. wallaay mag toog ci suuf di gis loo xam ne gën la ko gis. wallaay dëgg boobu sëriñ bi amaana moom la mën a mën ci man ak la ma gis man gisuma ko. rawatina sang. waaw waaw man gisuma ko mm. ah. ndeysaan mais loolu yàlla dogal na ko waaw loolu loolu loolu la suñu borom def ñun amul lenn luñ tur yàlla yi <laughs> ndeysaan ko bëgg loolu la dëgg ko bëgg trop dëgg la ah, di leen wax ne nag eh, tey suñu invité bi tey suñu soppee la woon bay Fall Kend moom la ñu invité woon defe naa ne Sénégal yëpp bég nañu mu nekk nag ki nga xam ne tey tubaarkala nag moom moo tëj jataay bi tey ci émission bu mag bi nga xam ne mooy mooy mooy ndaje bi di émission boo xam ne bilee dama ko séqoon ak sama kilifa Cheikh nu njaay tey mu nekk ca ca ca Nimzaat ma wuutu ko fii tey mu nekk tëj la boo xam ne bii kii nu invité nag ñu ngi cee ndokkee Sénégal yi yëpp di ci joxaale sunu ñaan di wax ne daal koor gi yàlla bu mu nekk sunu mujj koor. amiin amiin yàlla na yàlla na nu fi <laughs> yàlla nu fi koor gi bàyyi. ba bu ba bu dikkaatee fekkaat nu fi ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall. léegi nag euh, xam naa ci foofu rek ci la noo tëje di sargal ñëpp nag di leen ñaanal jàmm. di ñaan tam réew mi yàlla def fi jàmm. defal ko nag sëñ Sidi ak kilifa diine nekk ci réew mi yëpp. yàlla guddal seen fante sàmm leen rawatina nag dëgg-dëgg Cheikh Jëmb ñu ngi koo ñaanal yàlla guddal fanam sàmm ko ba mu ba mu mën a àggale liggéey fii maam Cheikh Ibrahima Fall bëgg mu mu doxal lépp mu doxal ko ci kàttanu Cheikh Ibrahima Fall rawatina nag Cheikhul Khadim mi nga xam ne mooy sunu wasila léegi nag dañuy bàyyi Baye Fall nag mu mu defal nu way woo xam ne ni ci la noo tëjee bisimilah lampu faal yaa may suturaal jarama Cheikh Sidil Muxtaar Muxtaar xalifatu général yaa yor la Bamba yoroon yaa yor la Bamba yoroon Cheikh Sidil Muxtaar ay takk ndeer day nu roog jëmmam Cheikh Sidil Muxtaar mooy Sëriñ Tuuba ku ko ràññee xamal ma ko jaaraama jaaraama Cheikh Sidil Muxtaar ñaanal sa réew mi ba ne Bamba tey jii ci xarnu beey Cheikh Sidil Muxtaar xalifatu général Cheikh Sidil Muxtaar xalifatu senera Cheikh Sidil Muxtaar xalifatu senera Cheikh Sidil Muxtaar xalifatu senera Cheikh Sidil Muxtaar